dans l'opposition ngeen battre campagne ci loolu am seen ay député dem assemblée nationale te une fois l'assemblée nationale seetlu la en fait boo xam ne soxlawul nekk expert lépp loo xam ne dafa arrangé nguur gi seen loxo mi ngi ci lépp loo xam ne dafay yàqal ko jégi seen loxo euh, mu ngi ci aussi elle a donné des euh, exemples ci motion de censure bi ngeen voté contre elle a donné des exemples aussi ci euh, bi ñuy dindi député am da ngeen a voté pour yooyu yëpp aussi ay mbir la yoo xam ne les sénégalais sont à droit de se poser des questions ñun mosuñoo jaay sénégalais yi ni ñun ay opposants lañ di def la ne nous sommes l'opposition xam nga lu tax en 2012 kan la ñu gagné yéen ñun la ñu gagné fan la bu ñu gagné fan lañ dem ca opposition ba mhm. jóge nañ fa am déet est-ce que am na benn gouvernement bu ñu dem. mais acte yi ngeen di poser aussi par rapport à ça nous sommes des hommes politiques parti politique démocrate boo xam ni lépp luy affaire waxtaan luy affaire dialogue comme ni ñu ko bindee dans notre communiqué le euh, donc c'est le porte-parole du président Abdoulaye Wade bind ko dialogue dafa nekk ci sunu ADN. loolu moo nu indil code constitutionnel de 92 lan moo indi ñu waxtaan reyante 91 93. 92 euh, déjà ñu am code boo xam ni moo mayee ñu wàccee le l'âge de vote de vingt 21 à 18 ans moo mayee ñu indi encre indélébile mhm. moo mayee ñu am une personnalité neutre mhm. bu organiser les élections deux 2000 moo mayee donc ñu def isoloir moo mayee ñu def les plus grandes avancées en matière électorale au Sénégal loolu waxtaan moo ko indi du ay tojante bopp ginnaaw nag ñun xam nañ bu baax mbiru tojante boobu xam nañu bu baax mbiru manifestation am na foo xam ne bu ñu fa tolloo manifestation jural li mu ñu war a jural mooy ñu ne kaay leen waxtaan ñu ne aha waaw léegi nag ñëw leen toog ñu wax donc suñ ay exigence yéen ñu doon bañal mhm. ba di si tojante bopp ak ñun mais fa bu ñu ko bëggee nangul dañuy ñëw taxaw ñu bind ko defal ko mais jaarale ko fi mu war a jaar ñu appliqué mais sous Macky Sall vous avez toujours refusé le a sanctionné même des responsables ci parce que dafa am principe yoo xam ni Macky Sall mosu see prononcé wu et pour la première fois depuis ba muy woote ba tey mi ngi soog a évoquer l'éventualité d'une de procès wala ñu seetal Karim Meïssa Wade. Ousmane Sonko nee na dañu la sànni benn yàq rek ngeen fàtte ndawal li donc ñun maanaam dañu la nii. ñun dama jàpp ni amul kenn ku nu mën a jox leçon en matière politique rawatina koo xam ni tu es un grand un grand commençant politique du ñun du tey jii la ñu nit. un grand commençant qui nit du mais ne nit kenn kenn waxul ne kenn pesewul dara dañu ne. ñun li ñu fi nekk. Mhm. ci opposition di xeex ak ni ñu ciy demee ba fii ñu toll amul kenn koo xam ni mën nga ñu ci jox une leçon ñun fi ñu jaar ba yegg si fii ñun noo ko xam. Mhm. am na fi loo xam ni ñu ngi koy demaale te képp ku ko yoroon di nga ko soxla muy benn stock de de de de de boo xam ni. qui tourne autour d'un peu plus de quatre cent mille voix yoo xam ne fu ñu demee élection da nga koy yore te loolu mën na la yóbbu second tour. kon ñu ça vous permet non pas de négocier nous n'avons pas mooy dañuy dialoguer le dialogue du loo xam ne dañ koy interdire en politique ñun lu ñu def dañuy taxaw ne lii la ñuy def duñu làqatu nag ci ginnaaw wala situation arrangé wu la nga ne eh, lii arrangé wu ma yéen itam ne leen déedéet arrangé wu leen déedéet ñun on n'obéit pas au doigt et à l'œil de personne. mën nga ma rappeler seen ay conditions pour bokk ci dialogue boobu. mais jalog bi déjà dégg nga le président lan la wax. Mhm. nee na Khalifa Sall mi ngi xaar. amnistie amnistie. Karim Wade ku setal ku ko setal deram la bëgg mhm. loolu réitéré na aussi le principe d'organiser un dialogue euh, après euh, autour donc des acteurs au Sénégal réitéré nag ci conseil de ministres boo xam ne subitement suivi mhm. mais li nga xam ne ñun dañ ko ci yokk moom ah. mooy l'audit du fichier parce que aussi il faut mu am un audit contradictoire mhm. parce que tamit du ne da ngeen di ñëw rek ñu ne waaw ñu gàddu ay bagages dem dafa am loo xam ne dañ koy revendiquer te lii contradictoire bu fichier bi muy la prolongation donc euh, des opérations d'inscription sur les listes électorales gis nga ni wax naa la léegi timing bi nu jël mm-hmm. dafa dafa dafa tuuti mais yëpp dafa nekk ci inscription primo votant yi surtout sur le plan administratif ñu lever ko ba xale yooyu yëpp mën a wote mën a dem inscrire ji mm-hmm. mais aussi l'organisation des élections par une personnalité neutre yooyu boo xoolee am na si nga xam ni c'est des points saillants ci livre ci livre blanc bi nga xam ni comme produire na ko en 2016 ginnaaw bi nu jógee Antoine Diome dafa leen di déranger mais Antoine du question Antoine Diome mais Antoine dafa far ñun parti démocratique Sénégal. amul lu ngeen ko dencal. non du moom. parce que man j'étais au tribunal quand il traitait Karim Wade de choses. waaw mais